jeex na nattukaay de mesure la mm-hmm. tey boo demee jënd litre diwlin. Mm-hmm. ngay agrégat la. Mm-hmm. Euh, bàmmeel bi ñuy suul nit sax agrégat la. Euh, salaire bi ngay jot agrégat la tey lu nekk euh, nattukaay la léegi économie moom. du foo du caaxaan. économie yi lépp lépp économie la. lépp jënd ak jaay la. fii loo fi gis rek. da nga koo jënd donc keroog euh, Barthélemy Diaz maire dafa dem fële si armère ya gis ne que am na ñoo xam ne ñëw jaay leen foofu mhm. fu leen di fu leen di suul euh, ñun nag Bougane Gueye Dany dafa wax benn wax boo xam ne bon gis nañ ko dafay dal si kaw gaañ mais mu wax wax bu mu war a bàyyi xel mu ne juutimaan yi mënuñu yor réew mi bon juutimaan yi rek mooy ñoom impo lañ xam ak taxe loolu lañ liggéey te nit ku nekk yow bon loo nekkul sëriñ taalibe mënoo nekk sëriñam li nga euh, nàmp moom ngay gox yi donc ñoom impo lañ xam Je vais mettre l'accent sur l'impôt. c'est président Sénégal commerce. Mhm. Mhm. parce que ñun doomu confort. nous sommes dans une zone de confort. nous ce nous savons, nous impôt problème parce que impôt ko. Mhm. ñaari catégorie nit rek ñoo bëgg impôt ñaar qui koy

léegi nag boo ñëwee ne nit ñi lii ngeen bëggul nii na si ñëpp dama leen na ñëpp ñëw fay nit ñi dañuy commencé taxaw fiscalisme hmm. dafay jur euh, anémie économique hmm. parce que rétention ñëppay taxaw du hmm. boroom xaalis bugul dégg investissement paradis fiscaux fa la boroom xaalis bugg dem parce que bu fa demee du fay impôt donc ñoom impôt lañ il faut nga def ko stratégie ak méthode parce que impôt dafa nécessaire sans impôt doo tabax école doo tabax mm. tali impôt dafa nécessaire mais kenn ko kon nga dem stratégie boo ñëwee xoj nit ñi rek ñi dañuy taxaw benn la 1974 euh, mm. France dañu président Valéry Giscard d'Estaing inspecteur du trésor la mm-hmm ay major ak ñëw rek mom tamit comme li tay euh, sunu dirigeants yi def mom loolu la def fiscalisme ak austérité bon vraiment ne ñëpp fay impôt li normalul euh, niche fiscale nangam kàddu yoy fa lañ ko tambalé ay niche fiscale il faut ñu génne fofu fi ñi ñu fay ñi li ñu fay entreprise yi def ay ATD comme ni ñu koy défé dem rek ben banquier néna na man chaque jour ma jot ATD tay tay tay mu ne ma jot naa fukki ATD. ATD mooy euh, yow bloqueel ma compte mhm. kii euh, parce que dafa war a fay impôt léegi ba Giscard defee loolu austérité comme ni au nom de la rationalisation des dépenses publiques arrêté nañ lii arrêté nañ lii arrêté nañ lii arrêté nañ France yëpp mer 81 parce que France c'est un pays de droite 45 mm. ba ñu génnee ci guerre ba 81

bi déficit bi rëyee parce que état dafa ñëw di investir di investir xam nga France commencé wa di noy bi déficit bi rëyee mu leen xolal dañ koy def ratio rek koy def ratio gaay door ko ratio ne entre PIB bi ak déficit bi door ko ratio nonu génne ben affaire léegi ñëpp di démé loolu léegi question bi ñuy laaj si li Bougane wax mooy est-ce que mën nañ yor réew mi waaw wala dette su fekkee mën nañ ko yor

pour nga nek procédurier procédure yuy maintenir état bi mais ENA du barabo bo d'ailleurs France sen ENA supprimer nañ ko euh président bi ni fa la guenné Macron waaye néna na ENA baaxul ba ñu supprimer ko supprimer carrément tay ñun ñi ngi suñu ENA bo xamni fañ ko copier ñooñu nee nañ baaxul supprimer nañ ko légui ñun euh Paal di wax lu am solo bu mu nax suñu

te xam nañ ne réew mi ala kulli al nit ñi aussi di accepter di fay impôt pour parce que luñ luñ soxal la euh, faaw itam euh, ñuy wax xëy na des comptes xam ne les hommes d'affaires fu ñuy commencé wax affaire justice reddition des comptes fiscalité dañuy daw alors aujourd'hui ñaari pesanteur wala ñaari paramètres yooyu nga xam ne da nga koy teg da nga soxla pour sa réew dox te boo ko tuddee ci kaw mu dàq investisseur yàq sa économie nan la autorité yu bees